munoo jël doomu jàmbur sànni ko à l'UGB wala euh, Ziguinchor kenn xamul man je ne comprends pas pour une bourse de 18 000 francs wala 36 mille francs mu jaral la nga dugg ba campus social osé xool nit nii tiire ko une balle vrai te mu leer la ni taw bu nekkoon sa doom moo taxaw doo ko def ñu waxante dëgg dafa mel ni ñun ay mbaam lañ en quelque sorte parce que pour dire vrai étudiants yi dañuy commandé ci université moom ak ñoom ak taalibe ñoo yam ñun dañuy taxaw si raw resto pour manger rek da ngay ran ran bu gudd rax ci dolli sa moroom étudiant parfois dala fay fekk naan laan may ma ticket pour ma dugg